égali président. non je comme je dis que même problème mu bis bu leen jëloon euh, piscine olympique di leen yóbbu Maris Ndiaye pour entraîner ils avaient ces problèmes mais je pense que ça comme c'est une mauvaise politique sportive Sénégal c'est à ministère des sports amu fi ministère du football moo am. sax équipe nationale buy voyager ñu jël vol spécial jox lion yi ñu dem ñu dem parce que football bi moo gën a populaire moo voilà populisme boobu moo bon sport yëpp sont d'égale dignité je pense que bu ñu defee mooy waxuñu li ñuy jox ci football bi jox loolu fa parce que bokkul cëru gaynde boo ko joxee euh, bëy wala picc wala mu fat mais je pense que ku nekk cëram da nga ko war a jox loolu la ñuy wax équité il faut que moom am équité par rapport aux disciplines cest à que on demande pas égalité maanaam boo joxee cent football jox cent basket jox indi handisport mais ku ci ne li nga yeyoo ñu jox la ko je pense que équité boobu bu amul rek dañuy wax rek mais bon politique sportive man gisuma ko fii bon maintenant on a la chance que football bi mi ngi gagné parce que bon on des joueurs qui évoluent au niveau international bon qui font que que ñuy gagné mais une réelle politique sportive c'est ça qui ça, manque ça dans ce Mais,